xaaral ma jug bés ba siit mu ma sëpp ca seet sës naa damay songu gaa yi wax di bakkaaru wahaabiyuun wàcc ngeen yoon alku ngeen xamu leen yéen yàqu ngeen faw seen yalwaana xëy tuuru ngeen fekk réew mi ci jàmm ak nit ñu maasi juboo yéen ngeen di yee fitna boole xaste maa waaru ñi bokk diineek ñi bokkul diine ñépp a fi ne xastentewun saagawun yenn donga fii xiiru sun mag ñu baax ñee jugoon samp fi diina ji wér yéen ngeen ni baaxuñ te naa ñoom ñépp a bàkkaaru ahmaduloo xamuloo te maanduwoo yaruwoo boo tuubiwul nag ba dee jaxiimi ngay jaaru yaa jiite ndaw ñi di leen bañ loo sëriñ si fi woon yar leen ci ay sos bi laay tey rek ngeen weeru tax di su lastaas la bindoon jox ko ndaw ña ko gëm sosal ca sun mag ña ay sos ku ko liir waaru ahmadu tiijaan mu mag lañu wax ca moom ku ko gis mbaa sax nga dégg ko sëw fit rët nga jug dóoru yoonu murit shirk lañ leen jiiñ ba tax ñanga naa ku ngooy ci Cheikh Bamba yaa réer ñàkk foo wéeru mag moo fi wax lu mu baax baax ñu ni ko du tus moog ña ko gëm ñëpp a yem ku faatu dem naaru te ñoom groupe lañu ñii biir réew mi ñee biti réew groupe bi whatsapp la ñuy woo ndaw ña ñuy jóoru groupe bi whatsapp ya seen njiit moom itaali la ne mooy Moustapha Cissé lu mu wax loola di duuru ay ndaw yu ñàkk yar Tiijaan Juuf mësay yàgg xas nañu Seex Muntaxa magam ja Muxtaaru jug nag de xasteeka saagay kilifaaka xalab bay boo mu dakk nangootuñ nit ku leen sóoru yéen njiiti réew mi jugaat leen wax ci ñii ñu wedam boo leen waxul guerre siwil lay jur ku ney dooru yéen njiiti réew mi jugaat leen wax ci ñii ñu wedam boo leen waxul guerre civile lay jur ku ney dóoru Nigéria xool ko gis ngeen foofa boo ko xaram ñoo bokk pas-pas ci aw ay rek lañuy nuru Nigéria xool ko gis ngeen foofa bokk xaraam ñoo bokk pas-pas ci aw ay rek la ñuy nuru boo leen waxul lee fa am bis dana am sunu réew ngir fu ñu dem taal ko ciy wax bëgg a toog nguuru te ay financement la ñuy jot li tax duñu dal dañ leen di wax loo ko jëfloo tàmm nañu siiru gëmuñu yàlla gëmuñu yonneen ba wax lañu man kenn du leen yaay ci ay wax fii ba gànnaaru murit yi tiijaani xaadir yeeg turux yi fi am nañ ñëpp maase taxaw xeex leen fi bañ yooru alxaaji maalik a tax tiijaani xam gën a gëm moo leen xamal yàlla ñoo ngi set ci bakkaaru te seex omar fuuti yoot yàlla la jox ba kanam ba far dundam gépp diw yiw muslatal nguru te sunu maam abdoulaye ñas gindi nit niti nit xaadiri laay yéeni seen yoon yaa ngi ni taaru cheikhul xadim diine rek moo tax mu bàyyi këram nekk noonam bu doon seen baay mu xëy yoru cheikhul xadim diine rek moo tax mu bàyyi këram nekk ki noonam bu doon seen baay mu xëy yoru ñii ñooy keneen réew mi ñoo ñag réew mi aar ko fu ne du nangu ay xaj yu jug ngir bëgg ko ruuru yéen ibnu taymiya ngeen gëm wala albani nun nag nu gëm bamba ak maam Maodo mi taaru dootul dootuñu nangu ku jug di wax ci ñoom lu warul dogon ko nag ñoom jigéen ñii duñu tal muuru gëm leen li ngeen gëm nu gëm nun li nu gëm ku ne dem bu wax ji jeexul nu raak ba tekki seen ñooru ku yaru daal ma ci tàngal gone réew du ko jik gone gu daa saw lalam daa nañ ko jox mbéeru te at nan nguur gi nañu wax gaa yi bàyyi nu kat am na nu bàyyi fàllu yor kuur am fi bay daaru saalihu gay badar wasalaam